tey jii ñu ngi fii ci autoroute Ila Touba euh, ginnaaw bu ñu président de la république joxe ay ndigal euh, pour que dans le cadre li nga xam ne moom mooy campagne de reboisement bi pour ñu bàyyi xel li nga xam ne moom mooy axe routier yi ak axe autoroutier yi ginnaaw bu ma waxtaanee ak euh, xalif général de Mourides ak Serigne basiru Abdou Khadre ñu ñaan joxe ndigal maa ngi leen ci remercier bu baax a baax. mais remercier également sama ñaari naataangoo yi nga xam ne boobu ba léegi euh, ñu ngi may ñu ñu may jàppale ñu ngi jàppale programme bi mooy programme reboisement bi le ministre euh, en charge de transport mooy euh, le ministre Oumar Youm beneen naataangoo bi mooy le ministre en charge des collectivité territoriales le ministre Oumar Gueye ci ndigalu président de la République parce que dafa bëgg réew mi nat donc daf ñu ne ci campagne de reboisement bi fexe leen ba sóoraale li nga xam ne moom mooy axe routier ak axe autoroutier yi autoroute Ila Touba nag nekk ci euh, benn ci réalisation yu mag a mag a mag yu chef de l'État le président de la République def ci réew mi ñu fas yéene ñun euh, lëkkaloo ak l'ensemble des parties intéressées pour que l'autoroute la Touba ñu reboiser ko du début à la fin nee naa c'est cent vingt kilomètres sur les cent vingt kilomètres xayma nañu ne war nañu côté bu nekk Euh, jëmbat fa douze mille plans muy au total vingt quatre mille plans vingt quatre mille plans yooyu yëpp c'est disponible. bu ñu paree la Touba bu ñu lancé Ila Touba euh, ci fan yi di ñëw ñu lancé autoroute Malick Sy euh, jóge Malick si ba aéroport Léopold Sédar Senghor mais également pourquoi pas jël beneen tronçon bi ba côté AIBD. incha allah programme de reboisement bi lancé nañ ko xam ngeen ni dañoo am objectif. keroog bi ñu defee réunion ak le ministre des collectivités territoriales ñëpp dégg nañ ne euh, bëgg nañu reboiser ci campagne bi avant nawet bi di jàll vingt mille euh, vingt millions de plants xam ngeen ni c'est un objectif euh, bu ma jàpp ni c'est un objectif atteignable mais également c'est un objectif mesurable parce que chaque jour ñu ngi am ay retours par rapport ak besoin yi nga xam ne moom la population di exprimer à travers les IREF Euh, pour que ñu mettre à leur disposition des plans euh, plan yi ñu ngi ci liggéey pour les rendre disponibles les 20 millions de plans mais également ñu ngi travailler avec la jeunesse c'est le lieu de remercier jeunesse bi ci engagement am parce que du ma di ko wax am na benn association bi ma demee keroog Koungheul dañu ne ren amul nawetaan à la place du ballon nous allons reboiser mu nekk slogan bu am solo bu euh, citoyen Euh, maa ngi ci woo population sénégalaise yëpp la jeunesse sénégalaise di leen ñaax ci loolu parce que président de la république parmi les priorités yi mu am ci juróomi at yi bokk na ci le PSE vert mu nekk au centre de ses préoccupations parce que nee na bëgg na bu fi jógee mu bàyyi fii li nga xam ne moom mooy euh, euh, ci wàllu reboisement lu mucc ay c'est de rendre le Sénégal vert rendre le Sénégal vert à travers ses axes routiers mais également mu rendre Sénégal vert à travers ses axes autoroutiers rendre le Sénégal vert euh, dans les villes dans les villages mais également rendre le Sénégal vert partout ci àll bi moo tax ñu ngi ci def ay jéego yu yu am solo démb euh, ñu maa ngi woon euh, fële ci raw fi nga xam ne dañ doon def pancartage ak délimitation des forêts classées xam ngeen ni forêt classée yi ñu ngi leen classé bu njëkk bi c'était en 1930 euh, bi ci mujj ñu ngi ko classé en 1968 xam ngeen ni empiètement yi bëri na di nga gis forêt classée boo xam ne euh, par exemple bu ma jëlee bu raaw bi c'est 300 euh, hectares mais loolu c'est sur le plan théorique moom lañ def ci décret de classement bi waaye bu ñu seetee ba seet dinañu fekk fekk parfois dans des forêts classées ay dëkkuwaay walla ay bërëb yoo xam ne dañu fay mbay dañu fay bay loolu moo tax na président de la république euh, wax ñu na ngeen ma defal inventaire inventaire forêt classée yëpp bi ñu defee inventaire ñu ngi am cent 186 forêt classée mais inventaire bi duñu ci yem li ñu war a def mooy xayma li nga xam ne moom moo des ci euh, euh, classement bi par rapport ak li nga xam ne moom laa tudd sànq muy ay empiètement président de la république yemul foofu dafa ne dama bëgg ren pour la première fois mu nekk acte historique ma classé au moins dix forêts dans au moins 5 régions di forêt yi mu ngi représenté à peu près soixante quinze mille hectares xam ngeen ni code bi daf ñu recommandé ñu reboiser au moins au moins dix pour cent du territoire national. que pour que ñu classé ko loolu nag incha allah bu ñu defee classement bi ak bu ñu xaymaa li nga xam ne moom moo des euh, war nañu jàpp ne dinañ atteindre si objectif boobu bu soobee yàlla liggéey bi door nañ ko maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant bu baax euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi ñu gunge le gouverneur le préfet le sous-préfet Euh, mais sant bu baax le le le maire euh, de la ville de Touba mais sant bu baax a baax euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités religieuses yëpp bàyyiwuma kenn ku nekk maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm ci taxawaay bi sant sant jeunesse bi sant ñëpp sant également la presse qui s'est mobilisée depuis ce matin